Sommarie.com, agression direction de la santé mère-enfant, ñoni ni may li ci yene kay yi yéene kaay yeeg Mamadou Mouhamed ci la ngeen jëf li ñu naan boo yenoon la attanul yoon wu ne da nga fa jaar dafa mel ne loolee bëgg dal état bu Sénégal mu l'observateur subvention gi gouvernement bi def ci njëgu courant bi def ko ci njëgu gasoil bi def ko ci njëgu gaz bi mu tollu ci juroom benn témiri milliard at mu nekk l'observateur ne lañu mo fatt état bi jamono ji journal bi gis ci ay sacrifice yu nguur gi def ngir courant beek produit pétrolier ak gaz butane bi seenu njëg mëna yomb ci askan li tax mu tar ci kilifa réew mi yene kay bi ne nañu bokku na ci xaaliss amul ci ci réew mi waa FMI taxaw sikki mu autorité yu Sénégal yi ngir ñu teggi subvention yi ci jamono jooju askan ñi ngi taxaw ci wet gi ñoom di xaar yëf yi gën a yomb lu mu woyof rek gis nañu ne des na saa suñu xëyee di sàkk ñu wàññi njëg yi enquête nañu rax ci dolli ñoom Sonko ak Jomaay temps de grâce gi ñu ne moom lañ leen di may ndax dañuy soog a yegg si de grâce ba daanaka ci tuñ rek ndax ci ñaari weer fi jot a def enquête gis na ne nit ñi promesse électorale jëfeeguñu ko boole cekkit seen communication bokkul fu mu jëm lu jëm ci ni ñu tàmbalee ñoom ñu yees ci bopp réew mi lii quotidien gis na ci ay gàkk jàpp nit ñi ak tëj leen di tëj lu ci mel ne kaabu Bah Diakhaté ak kaabu imam Cheikh Tidiane ñu fëgg démb ñetti weeri kaso ci la bokk Dora yóbbu ca kaso ba ci la bokk ci jamono joo xam ne yéenekaay bi nee nañu li ñuy xaar ci ñoom du ñoom mooy ñu sàkk ay pexe ci saafara ci urgence yi sëkkatal nit ñi Abdoulaye Dieye ni jamono aéroport international Blaise di AIBD moom la surnaal las xëy dalal ci xëtamu njëkk ay leral la xëy ci recrutement yu bari yi ñu ne mo am ci AIBD Abdoulaye Dièye nee bu fa amet mom bàyyiwu ko fo point actu nañu 182 agent la Abdoulaye Dièye mësa recruter ci aéroport te li tax moy dañu ubbi ay aéroport yu bees ci réew mi soxla ay nit ñu ko doxal tax mu recruter len te ci agent yoyé mu recruter amna ci lu mat 161 prestataire di téeméeri prestataire ak juroom ben fukk ak ben yo xamné def nañu lu ëpp fukki at ci aéroport di xaar ñu embaucher len journal bi doli ci duñu xamal ni Abdoulaye Dièye ba mu juggé ci AIBD 905 agent la fa bay junni agent ak juróom fukk yu ñuy wax neena xamul fu ñu juggé ndax mom bàyyiwu leen fa woon ñu bàyyi coow loolee te wax ci aji màkk ak li ci am le téema ñi mi ngi ñuy xamal ne ab ujaaj li mu baaxoo mooy su demee màkkatal mukaram sànni jamra ngir toroxal seytaane lapide ko waaye ren ji dana bari ujaaj yi Sénégal yoo xam ne bu ñuy sànni jamra air Sénégal la ñuy lapide ndax coono bu mu leen teg am na sax ñoo xam ne le téema ñu nee nañu ci aéroport la ñu tàmbalee lapide air Sénégal Alioune Badara Fall mi jiite air Sénégal sur soit nee nañu mu ngay dund ay waxtum yu mujj ca bopp compagnie ba ujaaj yi Sénégal yi air Sénégal waroon a yóbbu te defu ko yéenekaay bi nee nañu ñu bari ci ñoom compagnie bi di Flynas moo leen mujj yóbbu le témoin xëy ñu yóbbu ci waxi parti politique bu bees bu ñu ne moom la Amadou taxawal journal bi taxaw ci di ñu indi ay leeral nee nañu Amadou donte dafa ñàkk élection présidentielle yi ñëpp di xaar ndax dafay génn biir APR taxawal parti boppam parti bi ñuy wax ne da ko taxawal tuddee ko RSE loolee amul RSE di rassemblement pour la solidarité et du parti politique waaye mouvement de soutien la mouvement la bu doon jàppale Amadou ci wax ne moom leader de l'opposition bi mi ngi nas stratégie stratégie bu trafiquant de drogue yi nas rek douaneum Sénégal teggi ko Le nañu trafiquant yi duñu sonn waaye douanum Sénégal yi du sonn du tay ne ginnaaw fanweeri kiloy cocaïne yi ñu jàpp keroog samedi ca kër ayib douane jàppati na fanweeri kiloy cocaïne ak ñett démb ca gànjaay fa la ko jàppe ñeenti douane yu gàddu muuli cocaïne taxaw photo bi mi ngi ñuy seen ci xët mu njëkk réew mi bokk na ci li tax trafiquant de drogue yi ñeme Sénégal commissaire Cheikhna Keita mi fi jiite woon jamono OCRTIS di ñu wax ci xët mu njëkk Walf Quotidien drogue bu bari bi ñuy jéem a dugal ci réew mi dafa am ñu ko soxla ci réew mi ñoo xam ne dañ leen a war a alimenter. Soumari.com ak direction de la santé mère enfant ñoo leen doon may.